ci doomi aadama yi nga xam te ne bàyyeeku nañ fu nekk Ndakaaru dem foofu ca Kër Massar bi ngeen gisee keroog dimanche mbooloo mi dajaloo fële ca Kër Massar ndax amoo leen quand ak tiit ci seen dayowaay fii ci réew Sénégal jamono juñ tembe waaw mais man euh, le 31 décembre mhm. man dajale naa ay nit biir Guinguinéo loo xam ne li ko manqué bu man di bëriwul Hmm. monsieur le ministre non dama lay xaar non non mais c'est moi qui te parle waaw non non xaar c'est moi qui te parle nañu nañu nañu respecter sénégalais yi quand mais man ngeen xam naa a baax dama xam donc boo ne ma ñi dere na lu toll nii presque gën gi néew kon bàyyi ma waxaat voilà kon ay nit ñoo xam ne sorewul lii loolu laa la wax sànq sorewul lii quoi et c'est des gens yoo xam ne dañu taxaw war na ma yow ànd nañu ak yow ànduñu ak parce que man maa bëggul am option boobu man gàncax gi li ma fay def te du ko publier bëri na ak bëri. donc je me dama la bëgg expliquer en fait principe laa doon jox rek pour rappeler ay. pour ne la. Mm-hmm. Mm-hmm. en résumé Sénégal. Mm-hmm. ku ci nekk sañ naa dajale ay nit. nga jëlee ko Tamba Kédougou Podor ñëpp andi. ne meeting international ngay def. yaa ngi dégg. ku nekk sañ na ko def. d' accord Ablaye Wade boobu mu ngi waaj a daanu. ba mhm. taxaw ne 3 millions de personnes laa mhm. amul benn leçon bu ngeen tiré ci man man personnellement tiré benn leçon parce que politicien bu nekk. war nga mun a am sañ-sañu dajale ay nit wax naa la exemple. mais mbooloo mi mbooloo mi. mais dafa dajale fii sénégalais yi xam ñaata population 14 de sénégalais mhm. loolu mënoo ko def. mais pas ngeen def ay confusion Diouf Sarr d' abord une précision que j' apporte. Uh-huh. man fekkuma fa gis naa. laajte mhm. naa xam naa li fa xew. Mhm. comité la doon monté. comité dañu ne 35 personnes soo ko amee nga dajale def comité c' comme man. ma xëy suba teel 35 personnes wër ma. Mhm. ngeen foto ko ne man 35 personnes ñu mu wuyu fekk man comité la 35 personnes laa woo loolu moo fa xew ah. voilà mais li ma la bëgg expliquer en mooy Sénégal daal. politicien sañ naa drainer ay monde xanaa Cité sax mu ngi drainer ay monde te day bëri Youssou mu ngi drainer ay monde am na benn xale bu ndaw boo xam ne vingt ans la am barki démb drainer ay monde ba ñu arrêté ko donc drainer un monde ne signifie absolument rien d'accord loolu moo nekk affaire bi man je n'ai leçon à tirer sur ça parce que soo ma tiré loo leçon fii da nga ma tiré loo leçon si Siteu da nga ma posé question ne ma est que Siteu war na mën nekk président de la dafa mel ni comprendre bu baax li ngay wax yaa ngi dégg enjeu situation bi je refuse de tirer une quelconque leçon vis-à-vis de quoi que ce soit parce que Sénégal taxaw fi dajale ay nit lu yomb koy def sama morom koy def ay mbërëm koy def ay wéykat yu am ay vingt ans ñu ngi koy ngeen ko ah? lii mën ngeen ko def lii mën ngeen def yéen jour bu ñu ñun APR te ñi non adduglu ma rek ñun jour bu ñu décidé ñun APR keneen mhm. dañoo bëgg waxloo ñun suñu kuréel ñun ñëpp ñu ne dañuy wax benn kàddu Pape Malick lu mu am ci nit yëpp na ko andi diw ak diw ak diw lu mu andi ñun dajaloo fenn quand boobu nañu xam ne Sénégal fii ñëpp ba président Macky ngeen def ko te doo ngeen joxe ñaar dërëm waaye mais non mais ñoom dañoo xaaral ñoom lu ñu def ñu joxewuñu un franc joxewuñ un franc. maanaam yóbbuñu ay nit ci ay kaar ñu dugg dem. maanaam ñooñu. ñooñu est ce que jox nañ leen xaalis. non jox mën jox dara effectivement. noonu la ñuy def. non yéen fu ngeen defee massification. de la ma waroon a jox 15000 xam nga ay dara xam nga ay dara il faut aussi que les aussi ñu respecter les politiciens. Mhm. man dama nekk Guinguinéo exemple laa lay jox. ok avant ma fay ñëw benn échographie moo fa amoon dafa ma bilan Guinguinéo exemple rek laa lay jox benn échographie moo fa amoon mhm. département Guinguinéo bi tey soo fa demee treize échographie nga fay fekk treize ça n'existe nulle part mhm. treize échographie ci benn département mel ni Guinguinéo cent dix mille et quelques habitants soo doon calculer aujourd'hui échographie par habitant wala échographie par nombre de femmes man sañ wax ne mhm. Guinguinéo battre le record soo xool Afrique sax xam naa du ñàkk euh, euh, ëppalewuñ ko man maa ko def man maa ko def man maa ko def léegi exemple boobu rek laa lay jox. mais loolu loolu sa wareef la waaw xaaral ma jox soo bëggee sama wareef lu ci ne. d'accord léegi man maa defal loolu jigéen bi. leneen ak leneen ak leneen leneen. Mhm. suba ma xëy ne damaa bëgg woote jotaayu politique boo xam ne damay wax waxu ki nga xam ne moo tax ma mën lii ma mën. Mhm. léegi jigéen yooyu may laajaat xaalis déedéet dañ naan Pape Malick bi ñu andi di dinañ ko dem jàppale pour suba mu andi ñu leneen. ñun politiciens yi loolu la ñuy def moo tax affaire xaalis boobu il faut le relativiser waxuma waxaar xaar waxaar la xaar non fii espoir la ñuy dundee yaakaar mais ñun réalité la dundee projet waaw kaay que ñii su fekkee ne yaakaar la ñuy dundee ñun ñi ñu àndal xam la ñuy dundee mhm. réalisation la ñuy dundee Pape Malick moo ñu def échographie suñu wootee dañ koy wuyu su demee élection dañ koy jàppale dafay gagné président Macky mhm. moo ñu jox bourse de sécurité familiale mhm. te mosu am président Macky moo ñu andil courant président Macky Sall moo ñu andil tëli président Macky Sall moo tax suñu doom yi mën a jàng sans difficulté. Mhm. donc ñii su ñuy dundee espoir ñun ñu ñu àndal réalisation la ñuy dundee waaw xool nag léegi nag réalisation ki la ki la jox. ak ki la dig kan moo gën a dëgër pas-pas man de su fekkee ne yow da nga am sañ-sañ taxaw ne ki lay dig joxoo ko dara saa xam di na waxaar rek man su ma lay déglu ngay wax dafa mel ni waaw mais xam nga su la neexee nga ne dafa mel ni sa xalaatu bopp ngay jox et libre mhm. man tamit damay jox ma xalaatu bopp mhm. dëgër la su ma la tegalee sama vocal yi nit ñi dañ naan Pape Malick yow la ñu àndal duñ la bàyyi jéeyuñu la nga nga foog ne instant ban ah, jay boo xam ne élection su joxee su ma damay romb loolu dama la bëgg expliquer donc en réalité li ma wax ci Pape Malick te newul damay tagg suma bopp mun naa ko wax ci keneen ku dëkk Ziguinchor di ñu political ku hmm. dëkk Fatick ku dëkk Matam di ñu political hmm. jour ñun bu ñu décidé ñun hmm. na ñun ñëpp dañuy boole suñu affaire def comme ñoom la ñu def da fi gis lu ëpp liñ fi def donc moo tax man du ma jugé ci loolu d'accord voilà nit ñi encore une fois dañoo wóolu président Macky Sall parce que mu ngi liggéey d'accord d'accord alors euh, euh, li nga xam te moom moo nekkoon résumé euh, xew-xew bi quand même dégg nañ yëkkati ay kàddu yi nga xam te ne nii ñu bëri quand même ñu ngi ci interroger wu ñu doon laaj lan moo ci nar nekk seen réaction moo di euh, le maire président Macky Sall day jël bakkanam wala moom Ousmane Sonko mu jël bakkanu président Macky Sall yéen da toog di seetaan loolee wala lan moo ci nar. waaw xam nga nag fii coole fi amee jëlante bakkan du fi mos a am ah. waa moom kenn du jël bakkanam moom mënul jël bakkanu président Macky Sall moom bu mu koy sax gëmu ko ñi koy suivre war nañ xam ne kii c'est pas un homme sérieux kan ah mooy jël bakkan non mais kan mooy jël bakkanu kenn fii kenn du jël bakkan kenn rien n'arrivera loolu moo fi nekk dëgg xam non loo jàppee ay waxam yi ko non non ay waxu picc la ay waxu naxas a xëndëng wax yoo xam ne amul bopp amul genn waxu ku daanu si jakarta lay wax yaa ngi dégg waxu ku war a dem mhm. wuy ji ne tey de du <laughs> wuy ji yaa ngi caaxaanee loo xam ban caaxaan non non moi je te sérieusement man xam nga na noy si man je te parle sérieusement mais au sérieux quelqu'un ki dit dañuy jël sama bakkan wala mu joxe bakkan Sénégal fi politicien mais kuy wax loolu day mel ne sës na quoi ah, sës mooy wax lan moo fi am sës yow ñu mais quand même yow woo la demal ndaw la chaque jour ñu ngi wuy ji foofu na dem wuy ji il a des arguments aussi il dit il a toujours dit que moom il est innocent et que su muy demee tribunal mu régler problème il a toujours dit am ay trentaine d' avocats xaw ma lan ñu am xam-xam d'ailleurs quatorze avocats quatorze avocats waaw ñu am xam-xam sans compter avocats yi nekk ci internet bi ak yenn journalistes yi nekk avocat yaa ngi dégg mm-hmm. mais kooku kañ jarul ngay joxe sa bakkan yow kañ joxeel sa avocat rek ak sa xalaat ak sa ñàkk def du ma dugg ci dossier parce que Sénégal dafa métti soo commencé wax sax si affaire bi ñu ne yaa ngi wax si dossier bi naa waroo ci wax c'est-à-dire tu dois prendre l'envol loolu mais ñoom ngi ciy wax ñoom ñu ngi ciy wax mais ñun du ñu si dugal man daal vraiment mais bakkan maanaam bakkan bi mais bakkan na am man naa la Ousmane Sonko ak président Macky Sall yëpp incha allah seen bakkan dina mucc ci coow li moom mi dara du ko jàpp dina dem dina wuy ji ñu ngi koy ñaanal su wuyee mu ñibbi këram ak jàmm mu continuer def politique am loolu lañ koy ñaanal mais nag attention <laughs> yoon su waxul loolu <laughs> lu yoon wax dina nga def de. ah non waxu non non dama ne yoon su waxul na ñibbi këram. Mhm. maanaam ñu jugé ñu ne bàyyi nañ ko loolu lañ koy ñaanal. man man séeréer la moom <laughs> kii la joolaa la mënuma ñëw fii di ko ñaanal lu bon quand même. Mhm. sama kaw lay këpp yaa dégg maa ngi koy ñaan jàmm ak salaam par contre. yow sa bëgg-bëgg tey ji mooy ñu. ñu bàyyi Ousmane Sonko non non sincèrement man yéene wu ma benn homme politique. et puis d'ailleurs ñun non mais Ousmane Sonko la yow sa yéene tey ji moom moo nekkoon ci procès bu demee ñu ne ko Ousmane Sonko bàyyi nañ la non je te parle honnêtement et sérieusement c'est que ñun on a même un contentieux électoral avec lui c'est-à-dire Ousmane mii dañu bëgg dem ak moom élection dóor ko mu xam ne lu muy wax ni yëpp coow coow internet la pour réseaux sociaux booy yi ko wër di di ko commandeel ci internet bi il faut ñu prouver ko ne booy ci internet bi la ñu yem et que liy passé ci base bi fii c'est pas ça il n'est pas majoritaire dans ce pays ñun sans Macky Sall sans dara ñun suñu biir ñuy xeexandi suñu biir ñun ñoo am 46 pour cent élection yi passé président Macky Sall suñ ko sampee ci ndënd bi day gagné. yaa ngi dégg ay ñun non loolu nañ ci wax ah, nañ ci wax après su la neexee loolu bëgg expliqué ne hmm. ñun lu ñuy taxale ak waa ñun suñu sañoon urne moo ñuy séparé te loolu lañ koy ñaanal parce que il n'est pas xam nga waxoon naa ko waa Genga temps ele passé ñu ci ma leen non dama bëgg dem ak élection na mbër yoo xam ne ay a teel a jël ba ñuy toog fii du ñu sonal xam nga ñoom ay Sonko yi neen suñu demee ñu ne am na damay élection waxaar rek élection ah, locale législative dama la ñu exemple xam nga ñii suñu waree def élection suñu waree def élection tey nii nii ñu ne wooy condamné leen damuñu élection ak yu mel noonu dans dix ans quinze ans ñu ñëw ñëwaat ñun fekk président Macky Sall dem ñu war a jaamarloo ñoom ci affaire bi duñ leen mën a rappeler ay défaite mais ñun ñoo leen bëgg jàppale leen dóor benn par benn suñuy département yi su ko maire yi ñu raafale yëpp. ban maire de Kaolack soo jëlee région de Kaolack. Eh, soo mhm. jëlee. Mhm. nga ne yeewi askan wi. Mhm. yeewi askan wi wala nga ba. dem na léegi ci Macky Sall. Ah, mu nga kooku musul nekk Pastef wala kon Pastef ñu gëmul seen bopp ñoo fa nekk donc vide qui est là les gens ont pris le vide élection législative yi passé kan moo gagné Pastef ñu maire baa gagné xool rek yow foog nga dëkk noonu bien sûr waaw kan moo gagné njëbel élection législative Pastef moo fa gagné non élection législative laa bu waa ñëwee ku gagné non sa waaye gagné ah waa jeex na kon kenn kooku moom moom moom ay nitam <laughs> Sonko moomu leen c'est ça la réalité mais loolu exemple bu ndaw la ci biir. non non exemple ah. bu ndaw la ni ko xamee ci reconnaissance. Mm-hmm. Sénégal ni ma ko xamee ci jaajëfal kuy na. ci li mu def président a beaucoup fait il beaucoup travaillé. d'accord maintenant nag ñun aussi war nañu améliorer suñu affaire war nañu gën a góorgóorlu ci liggéey bi tout ça d'accord mais quand même bëgg taxaw rek ne ñun suñu régime dara baaxu si ñii ñoo baax ñii ñoo ñu gën ñii ñoo ça je suis pas d' accord et je le dis en toute sincérité en toute honnêteté maintenant nag langue politique bi aussi dañ ko war a pacifier man sax que man sincèrement. Mm-hmm. j'avais beaucoup de respect quand même pour Pastef ça j'ai fait une confidence man j'avais beaucoup de respect pour eux. Mm-hmm. vers les années 2016 2017 parce que am luñ bunti wax contribuer woon nañu autant au relèvement du débat politique. ok mais tey dañu bëgg tirer le a ci naan ce pays. non non ci ay affaires yoo xam ne depuis quand il ne on ne plus de de d'éducation depuis quand de santé mais tout la stratégie politique aujourd'hui se résume tout tout le politique aujourd'hui se résume à quoi moo def deful war na wuy ji warul wuy ji mais wuy ji dafa nekk lu naturel ci république am na ay ñu ëpp doole Sonko ci ay réew. Mm-hmm. bu ñu leen wooyee dañoo dem wuy ji seetal seen bopp. d'accord wala mënuñu seetal seen bopp ñu condamné leen ñu génn ci jeu politique Abdoulaye Wade taxé nañ ko fi def faat ay nit ah maître Sèye histoire bi ça s'est passé amul problème dem nañ wuy et tout ça là. dañu def confiance yu justice. mais moom dafa jàpp ne euh, seen état seen gouvernement. Hmm. dañ ko comploter complot boobu noonu nag moom moo tax ba mu wax ne sax.